Mama Jane, you watch your window key, toga imo gorabe. Mama Jane, you watch your window key, toga imo gorabe. Mama Jane, you watch your window key, toga imo gorabe. Zainaya, awambuk mangare, gainga to sumlingere. Zainaya, awa mbug mangare garinga do sumlingere awa mbug do sumlingere seneya awa mbug mangare garinga do sumlingere seneya awa mbug mangare garinga do sumlingere seneya awa mbug mangare do sumlingere yala wa mbug mangare garinga do sumlingere Sene yara wa mbug mangare garinga do sumlingere Sene yara wa mbug mangare garinga do sumlingere Sene yara wa mbug mangare garinga do sumlingere neya wambu mangare garinga do sumlingere nang yo saja jambai lo faga mamun yonta kamandude nang yo saja jambai lo faga mamun yonta kamandude nang yo saja jambai lo yo saja jambaylo faga mamuni onta kamandune yo saja jambaylo faga mamuni onta kamandune nang faga mamuni onta kamandune yo saja jambaylo faga mamuni onta kamandune nang faga mamuni onta kamandune nang yo saja jambaylo yo saja jambailo faka mamuri honta kamandude nang yo saja jambailo faka mamuri honta kamandude nang yo saja jambailo faka mamuri honta kamandude nang yo saja jambailo faka mamuri honta kamandude nang honta kamandude nang nang yo saja jambai lo faka mamuni onta kamanune nang yo saja jambai lo faka yo saya jambailo faka mamuni yonta kamandune yo saya jambailo faka mamuni yonta kamandune nam yo saya jambailo faka mamuni yonta kamandune yo no kalumalaya beske jaiwa kamandune yo na no kalumalaya beske jaiwa kamandune no kaluma laya mbeske njaay wa kamandude no kaluma laya mbeske njaay wa kamandude gariyo na no kaluma laya mbeske njaay wa kamandude gariyo na no kaluma laya mbeske njaay wa kamandude gariyo na no kaluma laya mbeske njaay wa kamandude na no kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo na no kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo na no kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo na no kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo na no kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne yo nano kalumalaya mbeske njaay waa kamandune yo nano kalumalaya mbeske njaay waa kamandune ngor yo nano kalumalaya mbeske njaay waa kamandune yo nano kalumalaya mbeske njaay waa kamandune ngor yo nano kalumalaya mbeske njaay waa kamandune yo nano kalumalaya mbeske njaay waa kamandune yo nano kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne yo nano kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo nano kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo nano kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo nano kalumalaya mbeske njaay wa kamandu ne ngar yo nano kalumalaya ɗaukalu malaya biskin ji aiwa ta manu ne ɗaukalu malaya biskin ji aiwa ta manu ne ƙaryo na ɗaukalu malaya biskin ji aiwa ta manu ne ƙarima ɗaukar ma bisika mudu saro korsaliye ƙarima ɗaukar ma bisika mudu saro korsaliye ƙarima ɗaukar ma bisika garimando gormak wesinat mendosaro korsane garimando gormak wesinat mendosaro korsane Efarimando gormak wesingan mundur saro korsalie Efarimando gormak wesingan mundur saro korsalie Efarimando gormak wesingan mundur saro korsalie Efarimando gormak wesingan bariman o gorma besinga budor saro gor salie bariman o gorma besinga budor saro gor salie e bariman o gorma besinga budor saro gor salie bariman o gorma besinga budor saro gor salie e bariman o gorma besinga budor saro gor salie bariman ɗo gormago e sigan mboɗo saro gorsalle e barima ɗo gormago e sigan mi ɗon saro gorsalle e barima ɗo gormago e sigan mi ɗon saro gorsalle gormago marima ɗo gorma gue singa mbidorsaro gorsalie marima ɗo gorma gue singa mbidorsaro gorsalie e marima ɗo gorma gue singa mbidorsaro gorsalie marima e ɗo gorma gue singa mbidorsaro gorsalie e marima ɗo gorma gue singa Arimano gorma gwesinga midozaro gorzolie Banjure kenda uvele azama vato jabere Njomba njune kenda uvele azama vato jabere Njomba e njune kenda uvele azama vato jabere Njomba njune kenda uvele azama vato jabere Njomba njune njomba njuune genra u felera sama fatu njaɓere njomba njuune genra u felera sama fatu njaɓere njomba njuune genra u felera sama fatu njaɓere njomba njuune genra u felera sama fatu njaɓere njomba njuune genra u felera mbanju ne kenta ku fele asama fato jebere mbanju ne kenta ku fele asama fato jebere mbanju ne kenta ku fele asama fato jebere mbanju ne kenta ku fele asama fato jebere mbanju ne kenta ku njomba njuune kenta kufele na sama fatu njabere njomba njuune kenta kufele na sama fatu njabere njomba njuune kenta kufele na sama fatu njabere Mariama se gorba sisi njofa mama gorjo salame Mariama se mariama se ngor mbasiisi njofa mama ngor josan la moye mariama se ngor mbasiisi njofa mama ngor josan la moye mariama se ngor mbasiisi njofa mama ngor josan la moye mariama se ngor mbasiisi njofa mama ngor josan la moye mariama se ngor mbasiisi njofa mama ngor josan la moye mariama se amase ngor basi sinjo fa mama ngor cosaan la maye amase ngor basi sinjo fa mama ngor cosaan la maye bari amase ngor basi sinjo fa mama ngor cosaan la maye bari amase ngor basi sinjo fa mama ngor cosaan la maye bari amase ngor basi sinjo fa mama ngor cosaan la maye bari amase yamase orba sisi njufa mama ngorjo salama ye yamase orba sisi njufa mama ngorjo salama ye mariama se orba sisi njufa mama ngorjo se orba sisi njufa mama mama ngorjo salama ye mariama Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiafa mama Ngor cosaan la may. Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiafa mama Ngor cosaan la may. Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiafa mama Ngor cosaan la may. Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiafa mama Ngor cosaan la may. Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiafa mama Ngor cosaan la may. Samba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la muy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la muy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la muy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la muy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la muy. Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiofa Mama Ngor cosaan la maye. Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiofa Mama Ngor cosaan la maye. Mariama Sène Ngor Mbasisi Ndiofa Mama Ngor cosaan la maye. Amiyo ndongwa jidalaye tavana na lumba yange. E amiyo ndongwa jidalaye tavana na lumba yange. Amiyo ndongwa jidalaye tavana Ndiyo dongwa jindala e tavana hana lumba yange Ndiyo dongwa jindala e tavana hana lumba yange E amiyo dongwa jindala e tavana hana lumba yange Amiyo dongwa jindala e tavana hana lumba yange E amiyo dongwa jindala e tavana hana lumba yange Amiyo dongwa jindala e tavana hana lumba yange E amiyo kwajindala ye tafana hana lumbayage amiyo kwajindala ye tafana hana lumbayage eh, amiyo kwajindala ye tafana hana lumbayage amiyo kwajindala ye tafana hana lumbayage eh, amiyo kwajindala ye tafana hana lumbayage ji dalee dafa naa na lu mbay nge e eh, ami yo dog wa ji dalee dafa naa na lu mbay nge e eh, ami yo dog wa ji dalee dafa naa na lu mbay nge e eh, ami yo வாஜிதல்லே தவனா நல்லு பயங்க ஏ அமியோ டோங் வாஜிதல்லே தவனா நல்லு பயங்க ஏ அமியோ டோங் வாஜிதல்லே தவனா நல்லு பயங்க dogwajindale tafanana lumbayange amiyo dogwajindale tafanana lumbayange e eh, amiyo dogwajindale tafanana lumbayange amiyo dogwajindale tafanana lumbayange e eh, amiyo dogwajindale tafanana lumbayange Damiyo dongwa jindala e tafana na lumba yange Damiyo dongwa jindala e tafana na lumba yange E amiyo dongwa jindala e tafana na lumba yange Damiyo dongwa jindala e tafana na lumba yange E amiyo dongwa jindala e tafana na lumba yange Damiyo dongwa jindala e tafana na lumba yange E amiyo

ya sa yana roko ya alfa e folenge banumbu ya sa yana roko ya alfa e folenge e banumbu ya sa yana roko ya alfa e folenge banumbu ya sa yana roko ya alfa e folenge e banumbu ya sa yana roko ya alfa e folenge banumbu numbu ya sayna rogo yal fare falege numbu ya sayna rogo yal fare falege e numbu ya sayna eh, rogo yal fare falege numbu ya manumbu eh, ya zayna rogo ya alfare eh, falenge manumbu eh, ya zayna rogo ya alfare falenge e manumbu ya zayna rogo ya alfare falenge manumbu ya zayna rogo ya alfare falenge e manumbu ya zayna rogo ya alfare falenge manumbu ya zayna rogo ya alfare falenge e manumbu ya sayena rogo yal fare falenge

ya Zaina rogo ya alfarre falenge Banumbu ya Zaina rogo ya alfarre falenge e Banumbu ya Zaina rogo ya alfarre falenge Banumbu ya Zaina rogo ya alfarre falenge e Banumbu ya Zaina rogo ya alfarre falenge yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge minister kakasina wodo nyana de no ñanan yeno gor xade éminiteur ka ka sena wondo ñanan yeno gor xade éminiteur ka ka sena wondo ñanan yeno gor xade éminiteur ka ka sena wondo ñanan yeno gor xade éminiteur ka ka sena wondo ñanan yeno gor xade éminiteur ka ka sena wondo ñanan yeno gor xade éminiteur ka ka sena wondo ñanan yeno gor Minister gagap sena wado nyanan ye no korade Minister gagap sena wado nyanan ye no korade Minister gagap sena wado nyanan ye no korade Minister gagap sena wado nyanan ye no korade Minister gagap sena wado nyanan ye no korade Minister gagap sena wado nyanan ye no korade Éminateur Gaga Sena Wondo ñaanal yee no korade Éminateur Gaga Sena Wondo ñaanal yee no korade Éminateur Gaga Sena Wondo ñaanal yee no korade Éminateur Gaga Sena Wondo ñaanal yee no korade Éminateur Gaga Sena Wondo ñaanal yee no korade Éminateur Gaga Sena Wondo ñaanal yee no korade Éminateur Kaka Sena Wado Nyana Nye Nokora De Eminite Kaka Sena Wado Nyana Nye Nokora De Eminite Kaka Sena Wado Nyana Nye Nokora De Eminite Kaka Sena Wado Nyana Nye Nokora De Eminite Kaka Sena Wado Nyana Nye Nokora De Ayayo Voice Fajuti Yavaja Binun Kim Kandolangele

Hey faya yo boj faju tinja faja min wen kim kan dola jenge Hey faya yo boj faju tinja faja min wen kim kan dola jenge Hey faya yo boj faju tinja faja min wen kim kan dola jenge Hey faya yo boj faju tinja min wen kim kan dola jenge Hey faya yo boj faju tinja faja min wen kim kan dola jenge e faya yo mbo hoj fa juuti jofaje min win gibka ndolan jege ongo sumbe jalanane e ramangetoe ongo sumbe jalanange e ramangetoe ongo sumbe jalanane e ramangetoe Kongo Zumbe jala nange eramange dwaye Kongo Zumbe jala nange eramange dwaye Kongo Zumbe jala nange eramange dwaye Bongo zumbe bure mandi ida mama de. Bongo zumbe bure mandi ida mama de. Bongo zumbe bure mandi ida mama de. Bongo zumbe bure mandi ida mama de. kule mandi dama made ngozumbe bure mandi dama made ngozumbe bure mandi dama made ngozumbe bure mandi dama made ngozumbe bre madi dama made kongo zumbe bre madi dama made kongo zumbe bre madi dama made kongo zumbe bre madi dama made be mandi dama made dangan mandi jalde bungu sube sunwam dangan mandi jalde bungu sube Ugo sube sungno am dangan mak ne jalane Ugo sube sungno am dangan mak ne jalane Ugo sube sungno am dangan mak ne jalane Ugo sube sungno am dangan mak ne jalane Bungo sumbe sunuam dengan makne jalane Bungo sumbe sunuam dengan makne jalane Bungo sumbe sunuam dengan makne jalane Bungo sumbe sunuam dengan makne jalane Bungo sumbe sonoamdanan mangrejalane Ugo sube sonoamdanan mangrejalane Ugo sube sonoamdanan mangrejalane Ugo sube sonoamdanan mangrejalane Ugo sube Wamdangan Magri Jalani Ogo Sumbe Wamdangan Magri Jalani Ogo Sumbe Wamdangan Magri Jalani Ogo Sumbe Wamdangan Magri Jalani Ogo Sumbe Wamdangan Magri Jalani Sun Wamdangan Magri Jalani Wow jangan jadi sopur benar Amin

chorro fiu e mire ala ele jone na a madu chorro fiu e mire ala ele jone jige madu chorro fiu e mire ala ele jone coro fiu dire ale ele chode da chije badu coro fiu الجوهر روف بري على جونين أجي بدو جوهر روف بري ngeen ñoo xam nga Sénégal xam nga ngeen jàppale ndaw yi ñun kenn xamuñu mais yéen ay taw ñoo ñu billaay wala li dafa neex xam nga rek mooy loolu mais mënuñu leen defale bu ñaanal leen rek yàlla na yàlla jàppale may leen yokkute lu ngeen bëgg ci àdduna yàlla na ko yàlla defal li nga takkal la li nga takkal ko jox rek <laughs> ñun taale borom taalu lañ jaajëf billaay champion nuyu naa la. waaw ñu ngi lay delloo ziar. tur nan la. Neymar. Neymar. waaw. Neymar bu pare wala bu làmb ji. bu làmb ah. waaw xam nga sa turandoo Neymar. waaw am naa ko xam naa ko nii rek. mais mosoo koo gis. non mosuma koo gis nag. mu mel ni yaa final woon barki démb. tey loo jël loo wut si. waaw ñoo ñoo ñoo ñëwaat rek. lu ma yàlla may nga xam ne noonu la quoi. tey ren lan nga amagul. tey am naa ñaari ñaari final. jël maa jël bañun fi xaw ma biir maa ko jël maa jël daan koy nag bi. alhamdulilah yaa ko finaalu barki dem. waaw maa fi finaalu ñaan ñaan yàlla ko finaalu waat fii quoi. tey looy wax sama doom yu yi fi nekk tey lan nga leen andil loo leen andil lu bees. lamb ji fii. Neymar. maa lay ziar. waaw maa lay doolu ziar Xaadim maa lay doolu ziar. waaw gis nga laa fa jëndeer laay waso maa ngi nuyu waa jëndeer ñëpp. di leen waaw doom surtout Abdourahmane Ndiaye faram bi moo nekk nii ñëw fii Gambie incha allah bëgg fee toj incha allah di wax waa jandeer nañ ñu xaar incha allah siifuur ñu tamit mooy lool noonu bëgg nañ fee indi lu bees pour incha allah. luur bi wala ñu ngi si poids bi benn poids mooy daw instant bii nii. poids lese bi waaw raw la quoi. biso mais fi gis tàng nan ah, nag loolu la daanaka ay luur rek ñoo fi ne mais dara teewul mooy lool tuuni mooy des ñi mujj incha allah. bu dee cent personnes mooy mujjee loolu moom bind nga nga teg fii. final kon lan lay séntu. incha allah maay final. ngeen soob na yàlla maay final. dencal affaire bi ma dem ñëw. demal ñëw. ay saxaate. kii nag mooy doomu mbër doomu mbaar siin la mbaar siin xam nga ko doomu mbër jàngal bëre la olof Ndiaye wax maa ngi lay maa lay bëggee di la grand maa lay siyaar bu wér. waaw waaw noonu la demee nag Petit sama lonko la. chaque jour ba léegi yaa waaw waaw gis nga damay damay compétir rek. waaw di wut doole di xaar Ndakaaru quoi mooy lool noon ak ñëw di jël incha allahu rabbi noonu la demee ko mais tey ñu ma nii nii tey tey tey ci lu baax la de. Ah, man jël naa laam yu gën a diis laam yu gën a diis. bilaay walaay taalaay xam nga ne yow la xam ñaaxar rek mooy gën a diis fii waaw fii samp ma gis ñaaxar gisuma leen fii. mais ñii ñëpp xoolal ñi ñii ñëpp Babou Sarr moo leen gën a assuré Babou Sarr xam nga Babou Sarr. aca yankaaw waaw waaw Bamba Seck maa lay siyaar baay dellu sori ngeen de wala ñoo sori tey tey kaarang la waaw kaarang la man moom fi min naa ko ah, sa dëkk naa fi waaji si bi la gis waaw dama waaj si tey man moom xam nga rek mooy loolu da ngaa wàññi niveau bi non non du wàññi niveau bi sax man xale laa samay moroom da ngay bëre poids léger dama koy jaande yenn saa yi sëgg ci luur bi rek. yee noonu la demee. guddi guddi. Doudou Baka Sarr benn tale dañ maa si. yàlla ma yàlla suturaal defal ma jël ko instant xaw na xaw na métti ci man de waaw yàlla ma yàlla suturaal rek tey. premier tour ngay daan. noonu la demee non man du ma mbër premier tirage moom waaw. kon tey daal final nga jëm. waaw laa ñaan yàlla. saa a jël laam leen ko bari sëriñ gis nga comme que fële kay am lu ñuy def fi rek jaante ka. ñëw pour jël ko de waxuma la na mais ñu ko jël fii ay mbaam al rek a fi daje te mbaam àll bu mag baa ngi. war na sëriñ Tuuba. laam yi guddi guddi cinquante. ay cinquante la fancière de cinquante ayca Babou Sarr. waaw. wala ma wala ma ne Ndaawal Daaru. Babou Diofior bu la neexee rek. borom Diofior. waaw maa ngi nii. fan. fépp. maa ma ne Diofior kese. Dior ba Sénégal ba Gambie. ba Gambia. waaw parce que maa ngi Gambia. mais sori nga de. waaw gis nga. Ah. comme lamb amul Sénégal te ñun ñu ñëw lu ñu yàlla may rek ñu doylu. naka lamb ji nag waaw ah, loolu la quoi waa gis nga yëngat na am na ay mbor moom vraiment. am na ambiance. am na ambiance. Mbaye ak Mor Ngom. waa gars yi moom vraiment ñoo ngi def seen liggéey quoi. vraiment ñi ma amul lu ñuy wax. li des moom ñun mbor yi nga xamante ne ñu ñoo a lii yëpp. ñu ñoo war a jël fexe jox jox affaire bi respect quoi. parce que gis nga bu dee la Gambie lañ yaakaar. te mbor yi ñoo ngi ñëw Gambie di indi seen problème yi te loolu yëpp gis naa jaru ko. comme yàlla dafa def lambu amul fale ñoo nañ fii di rente na gars yi seen xel ñu teg affaire bi au respect quoi. vraiment waaw. ana Bilal. ah ana Bilal Bilal. Bilal Bass muy Colobane. sama waay borom Colobane xam naa si. maa ngi koy fekkee. waaw delloo la fekkeel bu baax nga milki shop depuis Colobane. waaw gis nga gars yëpp naan bonne chance. waa via bi yëpp incha allah. la naan à suivre. waaw ok ñoo faru boobu la. waaw delloo naa la borom golf. borom ñoom Badoo waaw waaw waxal de. borom golf kese. maa lay bëggee. maa lay delloo bëggee bu borom yëngal bi. waaw waaw tey mu mel ne tey maa nga ko def. kese rek lamb ji. moo ngi nii rek di neex rek. di yëngatu. waaw bu baax a baax. Ah. waaw. moo rek Mbaye ak ñu de. gis nga. waaw ah. loolu moo moo leen war. moo leen war foog ñu yëngal waaw. jóge ba Sénégal ñëw ba Gambie di waaye gis nga. mu doon lu métti. gis nga rek wax état bi. waaw état bi xanaa ñu leen di ñaan rek. waaw ñu leen di sukk di leen ñaan rek ñu utul ñu lebal waaw ñu gëstu leen waat. ñu gëstu waat affaire bi quoi. waaw parce que instant dañoo sonn. Ah. waaw mais waaw diisul. wóor na la diisul. diisul ah. waaw.